ngir am ay xibaar yu leer te wóor lu actualité nationale et internationale Abonnez-vous ci cette chaîne bi di ASG produit ASG Ahmadou kenn du ko wane. ñëpp ay mbindam la yi maanaam di mbind yu xóor yoo xam ne nii eh, maanaam ëpp na xel doomu aadama maanaam moo ko bindee waaw. kon eh, mooy maanaam. ñi woy katabala yi xam na ko. fu la Sam doona gis <laughs> eh, eh, na ci lo xamne dama ko nettali. ni gis euh amna ci yo xam boko waxone ko waxoon wala maanaam boo jëfandikoo kàttanu sëriñ bi man nga doxé na xam sax du du du du gën ci yow. <laughs> sëñ sëñ dëgg ngay doxee. waaye alhamdullilah manam sëñ Tuubaa mom ku ko am. Mm. sant yalla da xamne amna ci borom lo xamne ne ko eh, jam koo jàmm. waaye ñun ñooy sant. ñi nga xamante ni waroon waroon nañu dund ba dee te du gis lii. Hmm? suñu borom jaar na ko ci ñaareel ba it euh, maanaam euh, ma ma woon leen lu nu suñu Masamba oh. ba euh, ba ngeen xam maanaam xasida yi ko daa bindaate maanaam maanaam bu suñ masaa bi mbindum suñ Masamba hmm. maanaam mbindum suñ mi neexul jàng hmm. waaye waaye suñ Masamba moo koy bindaat nii moo moo moo moo ko moomoon. alhamdulilah rabbil alamin. Xarim Xarim yaa ngi jënd li li li li daal moom. alhamdulilah rabbil alamin. biteel biteel daal moom. tey laa dugg ba sant Serigne Touba rek. sant Serigne Touba rek. mbir mi mbir mi dëggal mu ne si yéen. alhamdulilah. maa ngi lii Baye Sall. Baye Sall gars yi def leen lii pour mu génnee. déglu leen déglu leen. lii ay ay xarit ay xarit laal laal laal. maanaam gii gii bind na ci gii ñi ñi ñi ñaari bind ci. la ilaha illallah. alhamdulilah. sëñ bi Alima gaa ngi nii waaye sëñ bi nag li a kii vidéo bi mu jël kaala gi sama bopp. ah ah ah, ah, ah. bi am naa lu muy yëg.